غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فسكر النفعات السكرى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 alhamdulilahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala ddaalin wash-shamsi wadduhaha wal-qamari izaa talaaha wan-nahaari izaa jalaaha wal-layli izaa yaxshaaha was-samaa'i wa maa banaaha wal-ardi wa maa tahaaha wa nafsin wa maa sawwaaha fa alhamahaa fujuuraha wa taqwaaha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 assalaamu aleykum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أنسى بك وصريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi alamin sayyidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin amma ba'du fa atal yawmu yawmul iid li kulli mu'minin muslimin muhsinin sa'id waskuru llaha tabaaraka wa taala fii ala kawni shururan li nabi wal man yaxtafi salaa wa salama alayhi llah fi alihi wa sahbihi wa kullu man tala wa usikum fii wa baxdahu bi mulaasamati maxtira lakum min al axlaaqi wal xaqaaidi wal aqwaali wal af'aali bi wajhi llaahi taala al xaayid wa uxansirukum fii wa baxdoo an fihlima lam yuxtar lakum min alxibaadaati wal xaaraat fa innama xtaaru allahu tabaraka wa taala lakum huwa jaamiu li saadaat fa tuuba liman laa yaltafi ilaa xayri rabbi mulaasiman maxtiira lahu min muniri lubi wa waylun liman xaadoo iblis ilaa maa saa fa inna yulaasimu maa asaa wa saa qaala allahu tabaraka wa taala wa ma aatikum rasulu fa xusu wa qaala tabaraka wa taala fa man yaxmal misqaala zarratin xayran yara fa tuuba liman aqsama ata bi rasul ali bi alihi wa sahbihi salaama muxtisul wali la si himmatuhu tartaxi ilal xayri laa ilal kaddi wa dari wa waylun liman lam yaxus ma ata bi almuntaxa ali bi alihi wa sahbihi salaama man jaar wa uusikum ayyuhal ixwaan bi waj man kafaani saw wal xasid wal bi an laa tufaariqu maa lakum abadan fa inna mufaaraqatu tajru ilaykum alaman wa kabada wa anhaykum an fiilu kulli maa lam yataba lam yatabayan lakum kawnuhu shawaaba fa innahu mimmaa yuwajjihu ilaa xayrihum al ajra wa lillaahi sawaaba wa laa tatlubul karama bi xayri taqwa fa innal karama huwa taqwa wala tubul xissata min xayril xasisil mois bi jaay habdi nabi rasuli ahas fa inna man adbara an illahi tabaraka wa taala ila shaahu tarahu tarakahu ma nafsi wa hawa wa man aqbala illahi tabaraka wa taala ma alwasla xaada ilayhi kullu ma kaana yartaqi ilayhi min aljamil yaa ayyuhan naas ubudu rabbakum ittaqu laa ay sukun man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyasmut qad axbarani rasulullahi sallallahu wa baraka anna man taaba min ummati qabla mawti fa innahu yasawu fi inda mumiti may wa anna man lam yatub minhum tawbatan nasuha faqad amarahu man waxasoo nasiya rabbana la tusi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil wala tajal fi qulubina xillan li lachina amanu rabbana innaka raufun rahim allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi alkashira wa subhanallahi bukratan wa ashila alhamdulillahi lazi jahala yawmal hayd yawma tawsiyatin wa tafriqin wa illahi wa salaatu wa salaam ala man axrajna min zulmati ljahli wa shirki wa nifaax wal imlaax sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi saabi faax wa ala man tabiahum bi ihsaan fi jumlatil afaax amma ba'du fa haazaa al yawmu yawmun mubaarakun wa lanaa fiihi shay'un fiihi lam nusaarik fahmadu llaaha tabaaraka wa taala ala man jaara bihi fii lim taxa alayhi salaamu bi jamiil muqtafi fa inaasal yowm yowmu aklin wa surbin wa xitqin bi fatli man jaar bi fatxati fa man sàkkarlaahu tabaaraka wa taala fii fa innahu yassur bi kulli ma min al xayri yastafi fatlubu fihi min allahi tabaaraka wa taala xayruhu fa innahu tabaaraka wa taala yasrif ilaa xayrikum dayruhu wa tuuboo fii ilayhi tabaaraka wa taala min jumlati ihsaan fa innahu yaxfiru lakum wa yuqfi ilaa xayrikum sawi toxyaan wa tawajjahu ila rabbikum bil kitaabi wa sunnati wal ijmaa fa inna wa taala yakfiikum man abu fii lijtimaa bi jaayis al xasawaat al murdiya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sawi al ardiya alhamdulillahi li si hadina li xaasa wa maa kunna li naxtadiya lawlaa an hadana allah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi li si lam yattaxis waladan wa lam yakun lahu sharikun fil mulk walam yakun lahu waliyun min azul subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin assalaamu aleykum ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen balu àq te di leen bal àq ci li ñu fi dajale muy bis bii bi ñu jëfee julli gi ba noppi ñu tënk ci ay baat tuuti ngir waxtu xar bi waaye dana yell doon lee xamle illa yi bis bi wala sabub bis bi dafa am jaamu yàlla bu baax suñ boroom nguuram gi lu bàkkaar rëy rëy rëy bu bokkaale amul loolu bu ko jaam bi tuubee mu jégal ko tax moom suñ boroom nag wax nañ ni amul doom amul ndey amul ab xarit astaxfirullah amul ndey amul doom amul àndandoo jurul kenn kenn juru ko kenn du ko wéttali ci lenn waaye nag am ci bindeefi yàlla yi ku ñu askale ne ab xaritam la te kenn dàqul wax jooje ndax mooy xaritam suñ borom wala ndax suñ borom moo di xaritam yàlla moo xam waaye daal ku sell koo xam ni kenn mënu koo nelal kenn mënu koo dendale kenn mënu koo làngal ak lenn ak lenn ak waaye nag mel na ni wutal nañ ko ab xarit nit ki nag jaam bi nga xam ni dafa nangu ak njaamam sang ba dana am lu mu koy nattoo ci ñaari dogal yi koo xam ni ki da nga dund <clears throat> juróom-ñett fukkaat yoo xam ne tegal na lu tóol ñeeni ñett la tegal ñeeni juróom ñeeni juróom-ñaar ànd ak lu ci mën a am daal juróom-ñett fukki yi moom tegal na lim bu tóol yàlla rek moo xam <coughs> mu tëdd guddi gént suñ boroom baaxee la ko doom bi mu doom ba mu amee ab diir tëdd suñ borom am tegtal yu mu ko wax mu xëy yow woo doom ja wax ko la mu ko gis ci jaam boo xam ne bi day jëfe boromam ci li nga ci mën a dégg yow muy déglu ba mu woowee doom ja doom ja di doom ju ne ko defal li ñu la digal danga ma fekk ma bokk ci way mu ñi mu mel ne suñu borom digle na ab jaamam jaam bi digal na doomam muy diggante kilifa ak nit ak waajuram lu ci nekk dana am luñ ci mën a dégg ba kee jógee di jëfee ndigal la suñu boroom bàyyi ba nga xam ni tër nañu doom ja ba muy waaja def la nga xam ne moom la ko digalan suñu boroom xam ne kee moom matal na jëfe ne itam mu yónnee ca barab bu sell ba yónni fa kam wóolu jox ko am xaaf moo xam ne moom lañu wattee loolee yow mii tabaski nii dangay ngay tabaski nag ca la ngay mën a dégge foofa sababu tabaski du ndawal ga du deret ji suñ borom nee na loola moom yitteelu ko la ko ca yitteel mooy ragal ga ragal yàlla ga mooy la ko ca yitteel ndax dañ leen ko faral di wax xutba ba it dana koy baamu lu bari ci martaba bi bi nga xam ne nekk na ci ragal yàlla ana lan mooy yëg-yëgu ragal yàlla boobee jaam boobee bi nga xam ne suñ borom wax na ko noonee ba mu teg paaka ba ba war a dawal ba suñ borom wattee ko yow ma nga xam ne dangaa wëlbati ko di ca roy ba wut sab gàtt mu mel na mu war a mel nga di ca toon sonn lu mat weer wala mat ñetti weer yàlla baat boo waxee delloo ko ci tabaski baat boo waxee delloo ko ci tabaski eh, seytaane it dana ñëw taxaw ngir minute yu néew mu jéem laa yàqal wala mu jéem laa gàllankoor dana yomb lool ana nom lay yàqale comme jàng nañ ci téere yi ñu ni buñ jullee ba noppi ba def xutba bi balaa kenn rendi fa nga tënk woon ni kooka ngay roy muy sa ilimaan day rendi ba noppi nga ñor a rendi yàkkamti dana tax ñenn ñi bu ñu fa xaar xutba ba di daw loolu liggéeyub seytaan la ndax loo waajal nangami weer luy toll ak ñetti minute ñeent geste ci te ki digle ni boo defee lii defoo ko nii nii ak nii te diine de su ko natt la ci am xel ci xam-xam lañu koy teg waaye du doon la tàndale jumaa yi bari na fi jumaa ju mag jàng fee waaye du tax nga sukkandiku jumaa ji kat julli nañu baray bay dem maa ngi rey déedéet ndax tënku woon te ñooñu ndax ñooñu ba ñu sëgg ko sigi sëggoo sigi waru ko da am jàkka joo tànn dem troy foofu te jàkka jooja ca tënk waaye bu jumaa ja jullee ba ñëpp julli ba ne ña fa na ca loolu waa jumaa ja la engagé waaye yow julli jiwoo woon dana mat di xam ngir dafa ay sew-sew yoo xam ne eh, liggéeyu seytaane la mu di boo ñëwee nag ci gàtt boobu jële nañ ci yaxya ibnu salat mu jële ci yant bi sallallahu alayhi wa sallam xaala inna allaha katabal insaan ala kulli shay'in jolli nañ ci moom mu ne bu fekkee yaa ngi bëgg a rey na nga rafetal rey ga fa isaa xataltum fa fa ahsinu sibxata wal yurid ahadukum safaratahu wal yuri sabiyaatoo paaka ba na ñaw na ngay gàtt ba na gaaw bu mu diib buñ tëree gàtt bi ba nga lem nopp ndijoor bi nopp bi wala dopp càmmoñ bi ba nga ko tëree daal fa mu yem wala bu amee téere baat diggante ñaari téere baat ya fa la fa neex mën nga faa dawal paak bi am na ñaari sidit ñu wër bëligu bu benn bi daggee nga déedéet sa loxo benn bi dagg nga jaar xëtër bi dagg xar mi dana am bindi bindi foofa dana buuf der ji buusu yow na nga tudd yàlla tudd goo xam ne yëg-yëg lay doon allahu akbar yoo xam ne day yëngal sa ndox ak sa deret minute yooyu mooy tabaski ngir sa xel dellu ca nga xam ni tëral nañ ko bëgg a def loolee nga xam ni dëgg-dëgg ragal yàlla ak yëg rek moo nekk ci gisatoo àdduna gisatoo lenn waaye minute yooyee ngay binni di tudd yàlla waxtu wooyee mooy tabaski ngir ragal yàlla nga xam ni moo laltaay jëf ja loolu amee ba noppi nag la nga xam ne suñ boroom wax na ko aw soxla ci lee aw ma soxla ci lee na ngeen ci xiiwlu na ngeen ci saraxe yow mi xentu nañuy jëfandikoo ci gi bul tàyyeel ca tegtal yooyee defe naa dëkk bi moom ku fi bëgg a sarax ndawal di nga gis koo mën a sarax ndax woo feesee gàtt bi bala ngaa noppi lu mat fukki nit daa yor seeni si wër la dëgg la néew ñu nit ñi di bàyyi lu mu xiiwloo ëllëg waaye nag denc ba doy dal sarax sa te sarax sa moom lañu wax ni nii ak nii ak nii te ngay wut ab yool di sakku tuyaaba ci bis bii nga xam ne bis promotion la ku ci tuub ñu jéggal la ku ci balu ak sa morom sa morom baal la suñ bërëm wéye loola ba arab yi tudde woon ko bis taar bi kon nag ñi ngi ñaan yàlla jëf yi ñu ci jëf mu bokk ci jëf yu ñu nangu di wëlbatiku nag di ñaanal taajul udabaay wa imaamul aarifina xakimu samaan sëriñ Muntaxa Mbakke suñ borom dolli koo dëgëral ba yéene ji mu am ci jullit ñépp yéene ji mu am ci bëgg xam-xam yéene ji mu am ci ñu saxal ko ci dëkk bii di ci xëy di ci gont nga xam ne boo nee jàkk jëmam ji danga xam ne kii moom dem na yoonam nekkatul nekkul fii ñu ngi ñaan yàlla suñ borom dimbali ko ci defal ko ci ndam ba ndono lii nga xam ne moom la ko fi way juróom bàyyeel muy ndonal jàng ak xam ak jëfe xam-xam maxaba lu mu am lu cofeel am am te xam-xam lalu ko ci làmbatu ngay dox gannaaw nag wane nañ yoon wi sëñ bi bind na bàyyi fi waxees nañu dégg bàyyi na fi yeesalkat yoo xam ne nee nañ kuy roy sëñ bi ci anam gii ak yi nga ko royee bu boobaa kenn amatu aw lay xanaa boo doxee na neen ci fital rek nga koy dox wala si yoon boobu kon nag ñu ngi ñaanal suñ Muntaxa suñ borom àggalim yéenéem jim ñu bëggal ñun ñëpp al oustaz sëriñ Abdul Alim jan nekk ci penc mii di jëwriñu sëriñ Muntaxaa yan bii nga xam ne su borom dénk na ko ko tënk na ko ko ci loxoom ñi ngi ñaan yàlla yéene jëm am amal ko jullit yi amal ko taalibe yi suñ borom defal ko ci la kawe njortam te am nañ ci yaakaar am nañ ci njortul rafet ñi ngi ñaan yàlla yàlla ba suñ borom tas yaakaar wëlbatiku nag di ñaanal ñi nga xam ne danoo nekk ca arama yu sarifay ni di fa joxe ak ponk te ñoom it ba ñuy dem suñ bon daf leen tànnal ni maa ngeen tànnal waaye daf caa cité ni li gën ñee nga yóbbuloo ay xaalis ñee nga yóbbuloo ay yëf waaye dafa ne ni ngeen yóbbuloo fa inna xayra saari taqwa yóbbul ba nga xam ne mooy bëggan mooy bind wax rek mooy ragal yàlla ñaan yàlla suñ borom dafa leen ñu àggal seenu ak suñ borom dafa leen ajjan ma booran wa saxyan maskooran wa sanban maxooran ba ñu dellu siwaat fekk na fi jàmm ak salaam kilifa yi suñ kanam doon joxe waxtu yu juróom ak ñi jiite àjjuma yi ak ñi toppatoo jàkk yi la suñ borom daare ca loola ñu ngi ñaan yàlla suñ borom defal leen ci lu kawe seen jot te ñaan yàlla suñ borom dimbali nu ba ñu mucc ca bayit yooyu suñ bi doon wax wa baxdum yaamuru bi tihaadi wa huwa xaafidun ala tamaadi wa baxdum yanha anil hishaani wa fii fi kulli samanin jaani ñu ngi ñaan yàlla suñu borom dimbaluñu ba ñu mucc ci ca loolee ndax ragal yàlla moom ni ma ko waxan rek alayhi salaatu salaam ba muy ba ca xutba bu waaraatam ba ba ñu dafa tàggoo dafa ñëw dafa muy taqwalaay xaaxunaa taqwalaay xaaxunaa wa yusiu ila saddi salaasa maratin fab loxoom bu sell ba puus ko ci dënn ba ñett yoon ne ragal yàlla fii la nekk kon nag ñu ngi ñaan yàlla suñ borom def ñu dégg ak topp allahuma di wëlbatiku ak kilifay yi diine yi suñu kanam te teewlu wuñ leen ngir xataay bi maa ngi jàkkaarloo ak ñoom ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp mboor yi ñu jiite ak ñu nekk suñu ginnaaw suñu borom dafa leen su kawe seen jot yàlla ba suñu borom tas yaakaar yi allahuma axrijna min sulumaatil wahmi wa akrimna bin nuuril fahmi waftah alayna abwaaba ikmatika wa yassir alayna xassa in rahmatka ya arhamar rahimin wasalaamu min allahi aleykum ay suma kuntum